lii moom du ñu guleet ndax teraanga yàgg na fii ci kër Seex jóge ci loxoom Malay Diop jëm ci askanu kër Seex taaxe kaw kër maam alaaji askanu zone nord gépp ak Medina Fall képp koo xamante ne ni bokk nga zone nord yaa ngi sa loxo teraanga Malay Diop mi ngi jóge ci loxoom jëm si ci sa loxo muy gàmmo muy màggal muy tabaski muy tam muy koor muy korite lii duñ ñu guleet bu tam xarit jotee fii lay daaneel nag yi macha allah ku ci sa san nekk di nga bokk zone nord da nga koy da nga ciy jot ngunda seen mi nga nii taxaw seede moo koy defar paas yi màggal yi day joxe paas loxo bu nekk ak sa paas bu wëlbatikoo wëlbatiku boole ko biis yi kaar yi yëpp tege buñ jógee ci loolu ñu jëm koor mu génn ceeb indi buntu kër gu nekk nga am sa bopp saaku ceeb ak képp ku ca war a am ak ña nga xamante ni sax du am ceeb da leen jox laneen ñu ñëw ci korite tey mu ñëw def lu rëy lii nga xamante ne nii macha allah soble pomme de yomb na yombul ndax borom kër goo fekk mu xëy suba taxaw ginaar ñor ko laneen ñor ko nga ñëw jox ko soble pomme de terre wëlbati ko tegal ko ci Aboubacar fegu maanaam junni wala ñaari junni mu def ci poosam loolu kon ñun mëlay mënuñu koo fay waa zone nord nag ñoo ko deseel waaye mëlay deseelul zone nord dara boo demee ca kër kilifa diina yi mëlay nga fa barki déem ku déglu say seex mu njaay ci bi xam ni mëlay mi ngi bay waaram ba mat sëkk barki dem sëñ Cheikh Ndiaye moo toog waxal boppam ilimaan la nee na mëlay daaraam jee muy tabax simaam moo ca ëpp nee na mëlay jumaa yi jii nga xamante ni mooy kër maamam nee na ay nagam bu ko fa daaneelee gàmmoog ñëpp xam ni mëlay ñëw na kon mëlay Diop mention spéciale waa zone nord gépp a ko wax du samay kàddu nag kàddu yu jigéen ñi taxaw fii la ak ñëpp wasalaam Nogoy Mbuub laa tudd maa ngi dëkk fii kër Cheikh ci école taax kaw waaw Mëlay Diop moom dañ koy sant di ko gërëm ndax Mëlay Diop mi wax dëgg yàlla sans défaut lekkul ba kenn nag dëgg yàlla moo rakkam yi ma àndal ak xaritam yi ma àndal wax dëgg yàlla depuis ba ñu umee koor ba nag si lu mu saa bu ñëwee rek ñëpp a ciy bokk ñëpp lay jox te bu ko neex ceb beeg soble seeg pomme de terre beeg lépp lay joxe xaalis bi su ko neexoon di ko ci bi këram gii di ko jaay nag te kenn mënu ci lenn nag waaw waaye mën lay jóob moom nag sans défaut ca kaw kanam rek barke sëñ Fallou Mbacké. waa Sonor man la Ndeye Ngom macha allah dëkk Sonor di joxe ay seere nag ci mën mi waral tey jii lii. mu ko nak, nak ma sha allah ko nak do ma nak ndax social rek la yëngu ndax li rek social la ci li moo ci limi def ñok mom ak nag ñok mom ak tiep ak dolin ñok mom ak suukar ta lolu limi neex neex ma sha allah ta jabar ko ko jox nak tiep ak dolin ak suukar ya ko jappale waye lolu limi neex neex yeggim do ma adama yi. jàpp gi mu jàpp doomu aadama yi te macha allah ma lay xëy na mi ngi dakaar Dakar kenn lay ñëw fi waaye rakam yi mu fi bàyyi bàyyiwunu kenn nag. ma ci cité kenn Cheikh Diop mii lu mën lay war a def foofu mën lay tegul tànkam ak fay teg tànkam maa amee seede ci moom yëggu mu am ci doomu aadama tam mën lay tax mu di ko def man de damm naa mënumaa dem fenn toog sama du kër gee mu dematuma fenn ndax nag ku dëkk dem boo demee toog nga waaye keroog bi mu ko yëgee daa dawal otom ñëw sama kër jël lu bari jox ma. te loolu duma ko fàtte ne ndax loolu ko rek te loolu lépp mu koy def ci ak mbaaxam ak cadre ma lay kon ma lay Diop dañ koy ñaana yàlla lu mu bëgg ci politique bii ak lu mu ci séentu yàlla na ko yàlla defal ndax mi ngi dimbali jaboot yi mi ngi doxe social te loolu lañ bëgg di jox ñëpp nag amul xaj amul seen ku ci bokk mu boole la ci ku ci bokkut mu boole ba nga ñëm boole la ci amul jox kii bàyyi kii ñëpp la boole waa Sonor di dimbali ñëpp di jàppale ñëpp man day nga maa wax loolu te macha allah da koo def ma gis. ndax nag ñun géwal baaxunu waaye kun fa ba baaxoo te nag ku nu defal ku ne du nett la waaye lu nu xam si kon ma lay jóob yàlla na ko yàlla jotale ci li muy lu mu ba fu bëgg a yegg yàlla na ko fa yàlla eggal ci barka yonantu bi mbokk yi ñoo ko gisandoo dégg ngeen li nga xamante ne bii waa zone nord seede nañ ko ci kan tubaarkàlla macha allah jàmbaare l'islam ji bu ne jàmbaari l'islam dina xel yëpp dinañ dem ci kenn ki nga xamante ne bii mooy président Malay Diop ah jàmbaari waa daarul minan boo demee daarul minan tey sant tubarkàlla macha allah kër sëñ Abdoul Hakim jàmbaari Serigne Cheikh Mbacké Abdoul Hakim ji ki nga xamante ne bii social moo ci toog Malay bu màggal jotee mi ngi joxe paas yi màggal yi su gàmm jotee muy rey nag yi tam xarit waxaale ma ko tey jii ñu yëg si ak tabaski xar yeeg yëpp mu di ko joxe tey ñu yëg si ci korité tubarkàlla barki démb rek ceeb bi fii lañ ko daaneel bopp kër bu nekk dugal nañ fa ceeb ak la ko war a ànd ak suukan ak liñ ko war a àndal tey jii moo xam ne tubaarkàlla masal nit deesu ko lekk deesu ko naan njariñ rek lañ koy doyee te nag dama ni yàlla ku mu jox lépp say soxla daf laa séddale loo ku ne xam na la la doy waaye président Mouleye xam na loolu loolu moo tax bu waxtu wi dikkee lu mu am dina ko bokk ak jaami yàlla yi amul ma samba amul ma demba amul xaaj amul seen ku dikk ñu yëkkat teraanga jox la kon ma président Mouleye yal na yàlla la yal na yàlla la yal na yàlla la yal na yàlla la nga defal waa Thiès wàccoo nga ak zone nord wàccoo nga ak taaxi kaw kër Cheikh barki dema laylatul xadri yi ma sha allah xam nga ni fi la juddo fi la yaro lu ma am dina len ko jox kaw kaw sara Medina Fall tip fo xamante bi, nit nga fa jël nga ko def ko moy sa lepp kon nak li nga bëgg ya ko xam yalla nako yalla defal li rek lañu doy nit li dong lañu doy nit ko tané nga dimbali ko te yàlla tax ta yaa ci yaa ngi jàppale miskin yi baayo yi yaa jël sa alal diko jox néew doole yi kep ko am aajo nga fajj ko lo man ci lo xaw ma loo fekke mbaa lo yëgul waaye ko doomu yaay nag tubaarkàlla macha allah ajaratu siini Diop mu baax ma ni jooytu noppee gunu ñu tuddeele la sa maam El Hadj Malay Diop jàmbaari Serigne Cheikh Fall Baye góor ba kon nii nga mën a mel loo baax doyul loo am doyul as gor nga as gor nga nit ku yiw nga mbokkum ndayum Cheikh Diop mbokkum ndayu Baye Diop jigéenu Debbo faaw nag tubaarkàlla macha allah góoru Debbo yal na yàlla defal la taw tawféex merci beaucoup.